sëñ Cheikh Kounda Fall waaw jërëjëf Fall jërëjëf kii Cheikh Moustapha Fall la sëñ Modou Moustapha Fall daa bokk ci xalifa yi naan dañu dañu leen xalifa depuis seen bàyyi ñu naan xalifa xom xalifa njaareem dama Cheikh Moustapha Fall la ndeysaan ku nuyoo dee maye rek ku nuyoo na maye bu ngeen toogee rek dina xat dëgg ñëpp duñu mën a nuyoo sëñ Ebo Fall Falilu waaw Diop Cheikh Diop Cheikh Mamadou te yi xam ne yaa fi jëwriñ seen du nekkal seen suuf sëñ Cheikh Jëm Fall mi maam Cheikh Fall mi ngi toog ak njabootu Cheikh Fall gépp ñëw fii di la siyaara si di si di yeesal sa njébbalam di fa mboolem yoonu murid bi rawatina Baye yi jé jébbaluwaale leen ñëpp Cheikh Fall bu ñëwee ñëpp ñëw na tey yaa fi sëñ Tuubaa mooy Cheikh Fall njabootu Cheikh Fall gaa ngi ni kenn desul nag ñëpp a ngi fii fukki bunt kër yi ak benn ñëpp teew nañ ku teewul sa ndaw nga fi teew ñu ne ngi lay siyaare. di la di la gërëm si di la ñaanal si rëb ci daraje maam yu maam maam ju baax ja sëñ Tuubaa ak Cheikh Ibrahima Fall jotaay bii la sëñ Tuubaa yi liggéey loo nga yàgg ci lool te ànd ko wér ni ko bëggee sëñ Tuubaa bëggee ko ni yàlla ko sa njor te ànd koo murit yëpp xol bi ñëpp set na ci lii du duñ ne yéenewu nañ ko waaye bëggoon nañ moom ku nam na ci yaakaar mi ngi lay siyaar nag sëñ Sidi Maxtaar Mbàkke mi fi bàyyi ko ñaan maam yi baax yam fekk awa juróom wa doolu koy ngërëm ak xéewal tataasuñ si barkeem mbala ñoo fekk daarul axirati yi ak ñu ko fekkaat ñëpp ndax nañu tàbbu ji àjjana fekk doon sëñ Tuubaa ja ñu fi deseen nga xam ne dañu fi deseen rek ñu ñaan nga ñaanal ko moom mii di Cheikh Ibra Fall mu yàgg fi loolu te wér ak rakam yi bokkal Cheikh Ibra Fall gépp ak mboolem murid yëpp yàgg fi lool te ànd ko wér kàttan na leen ba jëkku ndigalal seen tuwaal yi ndax sa wajuru baax wa seen bilaat Mbàkke daa waxoon ne yaari kër yi dañoo am bañ kër gi ma di kër seen tuwaal am bañ kër Cheikh Ibra Fall am bañ ni sëñ Moodu xam nga li gën mbañum ko sëñ Tuubaa mu ne ko ah Fall Mbàkke bu gën ko xam kon mu ne ko toog fi ma toog di sëñ Tuubaa war a digle digle woo war a tere tere woo ko def lekk nga mbañum ko sëñ Tuubaa yéen seen kër googu xam nga lu seen bañ mu ne ko ah Mbàkke bu seen xam ko mu ne ko yéen seen bañ mooy ndigal jógee ko ko fu ñu ko defee lekk ngeen mbañum ko sëñ Fall kon nag ndigal bu lekk mbañ mukk nan jekku ndigal te yàgg ko yàggal ko jëfal lim bi mooy mooy bii pem yi nag bu na xaye nga yóbbu rek mën na yóbbu ko fa pem yi dugub ji kër yaari kër dong la sëñ Tuubaa fi ne ak serafal li des ay njaboot lañu ay néeg la ak wan ak ak kees waaye sëñ Tuubaa ngi nii serafal ngi nii kon Mbàkke dimbali nu te dimbali seen bopp nag yéen ñi fi nekk nag di yëwriñu sëñ Tuubaa ji ak yëwriñu serafal yii ngeen yàgg fi lool te wér ba liggéey bi neen liggéeyloo ki la ngay liggéeyloo neen tëbb doole ak ndimbalam ak tawfeexam ba nga defee ko ni nga ko bëggee moom mii di la liggéeyal di seerafal nga dimbali ko tëbb ko doole ak tawfeex ak ndimbal ak mboolem njabootam ki bokk seerafal gépp ba ni nga bëggee ñu liggéeyal ko seerafal ñu la ko ci rajo Sëñ Tuubaa boo ko ñaanee dana am kon ñaan ko réew mi nag jàmm amu fi jàmm am fi nag ak mucc ak xéewal gu nekk añ gu liggéeyal sëñ bi jëbal la njaboot si rafal gépp ak njaboot yoon yëpp waaw waaw ak njaboot gépp rek waaw jëbal la boppam àdduna ak alaxira ak njaboot gépp waaw waaw ñu ngi nii jébbalu si ak njaboot si rafal gépp ak njaboot sëñ Tuubaa gépp ñu ngi nii moom mooy jëwrin sëñ Tuubaa ji moom mooy jëwrin sa jëwrin ci yow ko jëwrin sëñ Tuubaa kon bu jëbaloo ñëpp jëbal nañ kon na si rafal la ngi nii la woon rek ñëwaat Sëriñ Tuubaa ngi nii Cheikh Rafal nga ne rek waaw. loolu rek la loolu rek la. waaw mu baax tey sant bu ñaanal nag ah, damay wax naan moom bi dama ko naan dafa am jàngoro yu mu joxe ne jàngoro yi ñëpp ko bokk. suñu jàngoro nu mu murit mooy li suñu bëgg te mënuñu ko looy suñu jàngoro buñ bëggee boo bëggee te mënuñu ko rek bokk nañu waaye soo bëggee buñ ko mënee dana métti kon li nga bëgg yàlla na ko mën yàggoo jëfe lool. waaw sëñ Cheikh Mbacke Baye ñaar Baye Fall lañ nii du ko léegi da nga am ñaar Baye Fall léegi suñu léegi amul ñaar Baye sëñ Moussa Mbacke na ngi nit Baye Fall ñoo ko amul ñaar Baye Fall léegi ah ah yéen amul ñaar Baye Fall kat ñun amatul leen luñ ci dolli ñoo fi nekk ba léegi rek sëriñ mu ne moom ñoom ñu sëriñ bi rek a fi nekk te sëriñ bi rek sa ba ñoo ko mos a am nag dégg kon moo ba léegi ba léegi looloo ki fi nekk mi ngi nii nee na wàllu bopp nag moom da leen defu laxasaay fas ngir fas yéene liggéeyal seen bopp ànd ko yéen si biir activité incha allah bisimilah la ilaha illa la إله إلا لا لا إله إلا لا طيفا ظروفا أما لا إله إلا لا لا إله